fi tey ci ci Thiès fi nga xamante ne moom mooy espace Sénégal service bu Thiès euh, bi président Macky Sall war a inauguré dans quelques heures euh, espace Sénégal service yi nag euh, lii nga xamante ne moom moo ko itteel mooy accompagner population bi ci lépp loo xamante ne wutum këyit la ci biir état bi ci biir administration bi ñëpp xam nañu ne nit ñi des fois dañuy am jafe-jafe Euh, pour mën a am accès ci yenn service public yi euh, rawatina nag am na service yoo xamante ne daanaka ci capital bi rek la mooy Ndakaaru loolu nag euh, tey président Macky Sall mbëbëtam moom mooy def de telle sorte que service yu ñu am ndakaar ñu mën ko am fépp ci biir Sénégal loolu nag lenn rek moo mën a tax ñu mën ko am moom mooy digital maanaam lépp luy fibre optique connectivité bi nga xamante ne dañu koy yóbbu fépp loolu nag président Macky def na de telle sorte que département wu Sénégal yëpp tey fibre optique bi ñëw na fa loolu moom moo tax mu nañu ñu tabax benn bërëb boo xamante ne état bi yëpp dañu daf koy utiliser muy les espaces Sénégal service guichet unique la boo xamante ne amul administration bi ko mënul utiliser maanaam tey boo soxlaa benn kayit benn ministère war ko def tey boo nu ko laajee rek tout de suite ñun mun nañu interconnecté wu ak ministère boobu biy def service bi su boobaa mu def transaction bi yónnee ñu kayit bi ñu jox ko population bi nga xamante ne dañu ko dañu ko soxla donc loolu mooy réseau bi nga xamante ne tabax nañu ko ci 45 wala 46 département wu Sénégal yëpp donc loolu nag li tax mu ñëw c'est surtout pour vraiment faciliter population ci accès euh, document administratif fii ci Thiès nag euh, tey lañu koy lancé te bëgg nañ Thiessois yi nga xamante ne ñoo ne ci département bi euh, saa su ne rek soxlaa kayit ñu mën a ñëw fii mën ko am ci ay anam yu mu ci ayib tey nag président Macky dina lancé surtout pôle emploi bi nga xamante ne dañu ko jagleel ndaw ñi ak jigéen ñi donc pole emploi boobu lii tax ñu teg ko fi moom mooy ñu mën a accompagner jeunesse bi ci lépp luy wutum xëy ci lépp luy entrepreneuriat ci lépp luy financement ñëpp xam nañu ne am na ay institut yu bare ci état bi dañuy accompagner jeunesse bi ci wàllu woowu waaye nag tey ci benn bërëb structure yooyu yëpp dañuy nekk fi su boobaa ci wàllu formation 3FPT mën na la jàppale wala nga soxla wàllu financement DER mën na la jàppale wala su fekkee da nga bëgg a structurer ce projet ANPEJ mën la jàppale ak structure yi nga xam ne dañuy accompagner entreprise yëpp yu mel ni ADPME ak structure yi ñu mel donc loolu moom mooy solo vraiment euh, espace Sénégal service bi ñu nekk mais également pôle emploi bi nekk une priorité pour le gouvernement sénégalais comme ni ko président euh, donc rappelé bu muy rencontrer l'ensemble des jeunes du Sénégal donc tey loolu nekk na une réalité fii ci Thiès te ñu ngi wax population thiessoise yi ñu mën a approprier wu donc dispositif bi nga xamante ne président Macky Sall daf leen ko jagleel. alors espace bu mel nii nag lu ci nekk dafa bëri voilà muy wàllu tabax bi mais également. wàllu euh, technologie bi nga xamante ne daf fi nekk ak fibre optique bi nga xamante ne dañu ko dañu ko déployer donc bu ñu ko évaluer c'est à peu près euh, je pense cinq cent mille dollars lañ ci lañ ci def ci projet bi nga xamante ne moom mooy Smart Sénégal bi nga xamante ne ADIE moom moo koy doxal pour le compte du gouvernement sénégalais. plan de communication boobu nag euh, jagleel nañ ko euh, déjà au niveau national. maanaam tey lépp lu ñuy def dañ koy def dans le cadre national réseau bi nga xam dañ ko tabax ci 46 départements yi tey nag ñu ngi fii Thiès ñiy lancé donc pôle emploi bi di lancé espace Sénégal service bi dinañu aussi jagleel ndaw ñi fi ne ñu mën a vraiment approprier wu outil bi mais aussi dinañu def une campagne de sensibilisation ak d'animation au niveau du département de Thiès pour que jeunes yi mën a approprier wu dispositif bi. alors fii donc ñi fi liggéey mooy d'abord donc coordonnateur maanaam wala manageru kër gi ah bu weesoo manageru kër gi ñu ngi am aussi la partie administrative et financière donc loolu déjà ñoom ñooy gérer management bi. position yi fi nekk également moom mooy ñi nga xamante ne mooy les conseillers donc conseillers yooyu euh, ils sont au nombre de six ñoom également ñoom ñooy nekk ci position yi mais aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy gérer euh, donc euh, la partie call center bi nga xamante ne lépp luy euh, gestion des appels des populations ñoom ñoo koy gérer foofu aussi am nañ au moins sept positions donc ñooñu ñoom ñoo war a composer personnel wu donc espace Sénégal service